kon du yoonoon ko ba mu fees ak garab ba tax na kon ñoom dinañ constitué wu partie civile su ko defee kon ñu porter plainte te bëgg na nit képp koo xamante ni ab pharmacien la ñu tudd la ci ñu sempile la ba mu seet ci seen biir génn leen ci daañ ciy déglu docteur Assane Diop bi nga xamante ni moom moo jiite boobu syndicat université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru eh, kilifa yi nag li ni sàkku rek moo ñu daal di tëj na mu gën a gaawee campus social ba ba étudiants yi daal di samp ay eh, amical rawatina nag lépp loo xamante ni rek jëm na ci codification maanaam neesay def ba mën a jot ci yooyee néeg wante tamit ñu daal di tas amical yi ba ah, jëmmi jamono li ko waral mooy fitna gi nga xamante ni amoon na fa ci diggante Kekendo ak Ndefleng ba benn waay ñàkk ci seen bakkan te tamit kooko sax moom nekkul woon ab étudiant loolu nag daañ ci ànd leeral ak Ibou Kane ñu wax it ci ni nga xamante ni moom la ñu yoree mbalit mi fii ci Sénégal syndicat bi ëmb travailleurs yi ci wàllu nettoiement daal di rafetlu dogal bi nga xamante ni nguur ak Sénégal jël na ko daal di fi jëlee UCG remplacé kook beneen société boo xamante ni daana gën a ci tonne mbalit mi fii ci Ndakaaru ak yeneen diwaan fii ci Sénégal wàllu football nag mu mel ni kon benn siis ak tamit ñi koy xëccoo bari trop di présidence euh, fédération sénégalaise bu football ñu ne maître Augustin Senghor bëgg naa am ñeenteelu mandat Augustin Senghor it a xëccoo rek ak Saër mi nga xamante ni moom moo jiite kon ligue professionnelle bu football wante tamit ñeneen ñoo xamante tamit am nañ yéen a ñoom it daal di jiite rek li nga xamante ni kon moom mooy présidence fédération sénégalaise bu football ci jamono ji nga xamante ni kon ñu ngi waajal Coupe d'Afrique mu mel ni kon xëccoo bi nar naa daal. ay garab yu bari te baaxul moom la police jàpp di sûreté urbaine démb ca Padoa muy batiment bu rey boo xamante du nañ ko ba mu fees loolu nag métti lool syndicat bi ëmb pharmacien privé yi fii ci Sénégal ñoom sax ñoom ñoo boole samba boo yooyu ba police mën leen teg loxo ba tax na kon jiital syndicat bi ne daneen porte plainte ngir rek mbir yi leer ndax garab yi nga xamante ni baaxul te ñuy dugg ci réew mi sonal na trop sénégalais yi te gàllankoor gu mag a mag lay jur ci wàllu wér yaram ba tax na it bëgg nañ kilifa yi leer Euh, lan moo wax tax kon yooyee garab dugg ci miim réewum Sénégal romb ñi nga xamante ñooy duwaan ak yeneen kilifa yi nga xamante ni kon seen rol mooy daal di surveiller rek lépp loo xamante ni kon garab gu bon la nar a dugg fii ci réew mi moom moo nekkoon ganu info du matin ñu ànd ceek maam Biram Diouf ak Jaafara Ba ab mbir goo xam ne nag yëngal na secteur de la santé bi ndax ci immeuble bi nekk ci Padois fii la police kat teg loxo ab réseau goo xam ne ni ñu ngi doon yëngu ci mbirum garab yu bon yi. structure bi moom la tuddee DPB dañ ko jox autorisation pour muy jaay ay consommable mais ñu gis ne def ci dugal ay garab et puis ay garab yi nga xam ne pour perfusion la ñu def signalement bi ñun ñoo signaler problème bi la direction de la pharmacie nekk ci nag ak ñoom di ci liggéey ak ba sûreté urbaine fekk ñu si ñun liggéey si ñun ñëpp ba daanaka ñu mën a def euh, saisie bi ñu def nii démanteler ce réseau. doon lu doy waar ba tax kon syndicat bi sax moom ne day dem ci yoon doon partie civile bëgg rek ñu amal ay sanctions. benn bi déjà c'est le trafic de faux médicaments. bon ak euh, la l'atteinte à la santé d'autrui maanaam ñu ngi jóg pour dem lor Euh, wala euh, euh, maanaam atteindre la santé maanaam wér-gu-yaramu nit ñi beneen bi aussi c'est des infractions douanières tudd nañ ci ay pharmaciens mais dañuy préciser que pharmaciens yi dañ leen jëloon foofu pour ñu fay liggéey et que enquête bi dina wax seen responsabilité fan la ci toll. bokk na ci ay carton yoo xam ne ni am na ay bu tey alcool li nag doon loo xam ne rek dina ñëw andi gàllankoor ci wér-gu-yaramu askan wi. li tax problème bi am mooy ay perfusion te perfusion bu ñu ko déggee mooy malaat bi nga xamee ne déjà sonn na nga jël ay garab yu bon perfusé waat ko ko maanaam da ngay gën aggraver son cas da koy rey moo tax ñu jàpp ne euh, danger bi c'est énorme seringue yi ngay tudd léegi jarul xeeb parce que seringue bu ñu koy wax da naan bu ñu ko utiliser si pour faj nit nit ko waru fa jógee gis yaramam tàng wala mu am feebar. ba tey laaj samp naka la lii mu ne am te kon administration bi xamul sax naka la mbir yi tëddee ba dugg ci biir réew mi syndicat pharmacien taxaw nag bëgg rek ñu amalu ni mel ba tey di ñaawlu sax na mbir yi tëddee woon ñeel Touba beleel gi garab yi ñu fa gisoon. te kañ jàppoon ni kenn du moom di moom du wuri jàlloo gannaaw ba ñu ko tegee loxo am na grâce présidentielle bu ñëw tax ñu teggi bépp tuumaguñu ko tegoon te kat fekk na procédure judiciaire bi di wéy. ñu wax ci mbasum euh, Sénégal fii nag euh, mu mel ni kon euh, ba léegi rek waa ministère de la santé ñi ngi wéyee di dokonte ay doomu aadama yoo xamante ni kon mbas mi laal na leen bisab démb bi daanaka ñeent fukki nit ak juróom-benn am na li nga xamante ni moom mooy coronavirus ci ñoom nag am na ci fukk ak juróom yoo xamante ni ay cas contact lan fanweer ak benn nekk cas communautaire yoo xamante ni ci Ndakaaru la ak diwaan yi nekk fii ci Sénégal ñi nga xamant nag ñoom ñoo nekk ci centre de traitement yi jamono ji juróom fukk la ak ñett fukk ak juróom juróom-ñaar ñoom ñoo nekk ay cas grave yoo xamante ni kon ñi ngi réanimation waa kër docteur di leen suivre wax na leen ko sànq ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru euh, bërki démboo Njaay am na fitna yooyu doxoon ci diggante waa Kekendo ak Ndefleng ba benn euh, doomu adama ñàkk ci seen bakkan kooku nag nekkul sax étudiant bërki démb leen ko rob fële ca Ziguinchor ba tax na kon assemblée restreint bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru démb ñu dajee ci visioconférence jël na nag ay dogal yu mag te tar bi ci njëkk bokk na ci kon ñu daal di rek euh, tëj campus bi ba baa ñoom étudiants yi ñu xool codification yi maanaam yoon wani jaar ngir am néeg ñu mën caa jaar wante tamit sàkku it ci directeur bu kuddu mu def lu ni mel ñu tas amicale yi ba jëmmi jamono ndax nee na lu jig njàkk moom moo njàkk am na yeneen dogal yoo xamante jël nañ ko Ibrahima Kane. directeur bu COUD sàkku nañu ci moom mu tëj campus social bi yépp te ñu taxawal ab système boo xam ne moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu codification yi lu ni mel conseil restreint bu assemblée universitaire moom moo ko sàkku gannaaw ab réunion bu mu doon amal ci visioconférence démb ci teewaayu recteur bii di professeur Amadou Ali Mbaye bokk na ci li ko sabab fitna yi ñuy nemmeeku ci université Cheikh Anta Diop rawatina ci guddi ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars ci diggante ñaari association bi di Kekendo ak Ndefleng am ku ca amoon ay gaañu gaañu mu jëntal ga mu ñàkk bakkanam dimanche yi ñu weesu conseil ba ne la mu seetlu nag moom mooy kooke ñàkk bakkanam gëjoon na bindu ci université Cheikh Anta Diop depuis 2015 conseil ba teg ca itam ne moom li muy seetlu ci biir université bi lu ko naqari la ndaxte ñu bëri dañuy nekk ci campus social bi te amuñu benn lien ak université Cheikh Anta Diop. ci loolu conseil bi di naqarlu bu baax a baax fitna yi ñuy nemmeeku ci université Cheikh Anta Diop te di ko condamné bu baax a baax. conseil ba bokk na ci beneen ndogal bu mu jël mu soxal wàllu amicalu étudiants yi mu ne yépp nañ leen dakkal fi mu toll nii tat def benn commission boo xam ne moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu statut amical yooyee te ñoom sax ñu jox leen ñu tëral ab règlement intérieur conseil bi nag nee na moom dina wéyandi di def kéem kàttanam ba nga xamante ne jàmm dinañ ko gis ci biir université Cheikh Anta Diop boobu te fitna yi ñu fexe ba buñ ko gisaat ci daara ju kawe gi. jërëjëf bu dogal boobu nag étudiants yi rawatina ñu jiite amicale yi daal di koy naqarlu ba tax na sax tey jii am na ndaje mu amoon jëm ci conseil d'administration bu kudd du centre des seuvre universitaire bu Ndakaaru ñoom dañ ko gedd ndax waroon nañ faa teew ci teewaayu sax recteur euh, Amadou euh, Ali Mbaye mi nga xamante ni kon moom moo ko jiite li leen métti nag mooy kon dogal bi nga xamante ni assemblée universelle jël na ko te diisoo seek yooye amical daañ ci ànd ak Abdoulaye Cissé mi nga xamante ni moom moo jiite amical des étudiants bu fac lettre ci yeneen xibaar ñu wax ba léegi ci wàllu njàng meek njàngale mi gouvernement bi bëgg naa recruter lu toll ci juróomi junni jàngalekat président de la république moom moo xamle lu ni mel wante nag waa COSYDEP di kuréel gi nga xamante ni moom it li ko tax a jóg mooy ñu ñoŋal njàng meek mi fii fii ci Sénégal bëgg nañ mbir yi leer li naan quota sécuritaire maanaam politiciens yi di am ay wàll ci ñenn daal di dakk ndax day yàq njàng ñu déglu moom Cheikh Mbow ci micro Aminata Mbari Sow. dana yoo xam ne war nañ cee def attention bu njëkk bi mooy ñun ñëpp dundoon nañ quota sécuritaire muy recrutement boobu nga xam ni dafa lalu woon ci ay xaritoo wala lalu ci ñoo bokk parti loolu dañu ne bu ñu juróomi junni jàngalekat yi fàttali loolu kon nag recrutement bi na nekk lu ubbeeku. loo xam ne day leer ba xale bépp koo xam ni euh, am nga am nga am nga lii li euh, li enseignant di laaj li ñuy laaj pour nga nekk enseignant nga am possibilité ñëw compétir loolu mooy bu njëkk bi ko def ko concours wala test fexe ba nga xam ni bu ñu koy def it euh, niveau bac bi nga xam ni moom mooy minimum bi ñu maintenir ko formation wu at mu nekk loo xam ne aussi dana ko ci mën a dana ko ci mën a xaar loolu mooy bu njëkk bi bi ci topp mooy. ñu jàpp ni fi ñu toll puisque weer yu paase yëpp wala at yi paase yëpp dégg nga ay jàngalekat yoo xam ni am nañ seen diplôme euh, waa centre de formation nee nañ mën nañ jàngale te jëluñu leen woon kon nag bi occasion la pour ñu fay coow en lee recrutant loolu mooy ñaareelu mbir mi nga xam ne xalaat nañ ko ñetteelu mbir mi nga xam ne jàpp nañ ko mooy il faudrait évidemment que ñu fexe ba lépp loo xam ne dina gunge fi ñuy tàggatee xale yi ñu gën koo dooleel ndax xam ni bu nekkee ni fi ñuy tàggatee doon na jël juróomi téeméeru juróomi téeméeru jàngalekat bu waree yokk il faut kon ñu jox leen jumtuwaay yi war a mën a tax ñu mën a gunge xale yi démb gouvernement bi daje na di ay ministre jëm ci habitat collectivité territoriale ngir rek ñu xool naka lañ def ba jëlee fi UCG di unité coordination gestion déchets fii ci Sénégal remplacé ko société bu bees bu ñu tuddee sénégalaise de gestion des déchets loolu nag syndicat bi ëmb liggéeykat yi yëngatu ci wàllu mbalit mi daal di rafetlu boobee dogal li ñu bëgg nag mooy ñu dugal leen ci ñoom it ñu xool naka lay doxee rawatina li nga xamante jot noonu ko am ci ay akki ci wàllu ñu bàyyi ko fii ba noonu rek moom Madani si rafetlu boobee dogal it eh, di sàkku rek ci kilifa yi ñu xool bu baax a baax naka la ñuy dégloo ñoom liggéeykat yooyu ñu déglu ko. dañ koy rafetlu dans un premier temps lépp lu yokk UCG rek ñun euh, war nañ ko mun a lu waaye aussi tamit euh, ñun dañoo nekk ñi nga xam ne ñooy représentant liggéeykat yi di sàmm seen ax ak seen yelleef société bu mel noonu nag suñ koy créer nag foog ñu impliqué ci travailleurs yi dans les prises de décision concernant leur secteur parce que damay faral wax tout temps sooy def mbir man te boole woo ma ci yaa koy def contre man. donc ñun ñu ngi xaar loolu pour que jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci wàllu liggéeykat yi parce que ba fi may wax ak yéen am nañu une convention collective propre au secteur nettoiement bi nga xam ne état du Sénégal moo ko signé ba tey depuis 2015 mais mënuñoo fay ba appliqué ko te yu mel noonu su amee foog ñu ñu woo ñu ñu toog ñu xam les tenants et les aboutissants donc ñun fu ñu leen di xaar rek mooy que ñu fexe ba sàmm ak ak yelleef liggéeykat yi fexe ba augmenter seen pouvoir d'achat ba jafe-jafe yi nga xam ne mooy les dysfonctionnements yi doon am ci wàllu liggéey bi ñu fay ba saafara ko. Kër Malal ak cépp ñaari diwaan la yu nekk ca noota guy jama ca département bu na di ay dëkk yoo xamante ni kon xawoon naa làqu ndax rek ñàkk ay yoon yoo xamante ni moom moo may askan wi ñuy dem ak dikk loolu nag boo ci doolee malade yi bu amee jafe-jafe nañ leen di yóbboo feneen ngir faj leen tax na waa PUDC tabaxal leen benn piste de production di rang-rang boo xamante ni kon dina mën a rek tax dëkk boo boo gën a mën a féex wante tamit liñ bëgg mooy lépp loo ay jafe-jafe surtout mbayum légume mi ñu mën koo jënd ndax at mu jot lan fay bay ci ay légumes te duñ gis ku ko jënd bari na ñu ànd ceek Cheikh Anta Diop ak say latiir jàpp kër malal ba dëkk bu ñuy wax cëpp nekk fii ci nootuguy guy daanaka fii ci tool yi de ay tonne pomme de dafi doon nëpp ak i soble ndaxte amuñu woon yoon bu ñu jaar tey ji de waa PUDC ñëw defale leen benn piste de production askan wi bëgg lool ñun depuis jamono Senghor jamono Abdou Diouf ba Laay Wade mosuñu xalaat ne ndax fii doomi aadama na fi jaarale rang-rang bu njëkk sax bu ne buñ gisoon oto sax dañu doon daw parce que daanaka dañu meloon ni bokkuñu ci adduna bi sax amuñu dara ñun béy rek la ñu xam mbéy mi balaa muy balaa nga am ci dara nga am piste. maire ab nootu guy jama di Maguette Ndiaye. xanaa di sant rek vraiment parce que lu lu mel nii la ñuy xaar ci ci li état central. waaw diggante nooto Kër malaal Kër Omar 5 kilomètres la. mais diggante bërëb ba bërëb saw ci beneen axe bi 13 kilomètres la. ndax fii bu njëkk pour nga ñëw fi da nga daan def ay waxtu yu bari suuf la woon mais ci PUDC bi président boole programme mu Kër Malal Kër Omar bërëb ba ab saw ak bërëb jaawo bu ñu amee malade mën nañ ko évacuer te vraiment dem ak dikk bi yomb na trop. ci ci ñoom léegi. askin wi yeewoo ci tund wi ci diggante kër Omar kër Malal jàpp cëpp beneen jafe-jafe la ñu am boo xamante ne yëpp nañ ko moom mooy ñàkkam ndox mu tar. teen yi nga xam ne moom lañuy moom la ñuy roose moom si moom la moom la ñuy naan ndax teen yooyu nekk na loo xam ne machines yi ñu ciy def machines yooyu dañu am huile huile boobu maanaam mooy jóg ci kaw maanaam mooy dugguwaat ci biir ak xalxeer bi nga xam ne maanaam bu kenn mënul natable loolu dañ koy segg ak micro boobu ñu koy naanaal loolu nekk na loo xam ne wax dëgg yàlla jaaxal nañu lu bëri bëri bëri ci jamonoy koor lañu nekk tax na nag ay saret la ñuy war ci wu tàng wi dem ci yenn gox yi di uti ji am mu sell dugg bi fii jafe woon na lool gànjool moom euh, nekk fële ca ndar la leen sonal mooy xorom si rawatina rek euh, na muy def rek ba tax na meññeef dafay jafe ci suuf si tax na rek kon ñoom ñu jóg rek ngir wut ci saafara rawatina li naan bël ba it day loo xamante ni kon dina tax rek ñoom ndaw ña ngir ñu liggéey ci entreprise yi gis ci seen bopp lu jafe-jafe la ñi ngi wax nag seen tawat ci reportage Ousseynou Diop ak Habib Seck. seen gox bile. loolu ñuy ñaan ñu defar seen canal bi ndox mi mën a ñëw ba jigéen ñiy liggéey ci entreprise agricole yi nekk ci zone bile loolee mën a dakk ndaxte ñoom jàpp nañu ni gox bi am na lépp waaye nag li ci des état bi rek moo ko war a def. parce que xam na ne gànjool ay jafe-jafe fi ne rawatina ñun gànjool potentialité yu bëri am na ko ci wàllu ressource yu bëri yu nga xamante gànjool pour développer lu yomb la donc ci wàllu pêche ci wàllu agriculture ci wàllu wàllu euh, élevage. vraiment mu gis ni gànjool tamit yërëm na leen ci benn côté mooy jigéen ñaa ngi jóg di 4 heures du di xëyi toor Laurent. ak SCL ay jafe-jafe la. ci kàddu que président conseil communal de la jeunesse bu Ndar nguur gi dafa war a gën a làbbali liggéey bi ngir xale yi mën am xëy. te ñu gën a ndaw dëkkam gën leen jox des bonnes information ci financement yi nga xam ni am na ak formation yi nga xam ni am na. jafe-jafe yi nag bari na ci diwaanu Gandiol bokk na ci canal bi nga xamante ni boobu ba léegi ñu ngi jooy ndox may nit ñi di bàyyi di gën a wex koram tax mbay ma xaw tàggatem bi ak lii di bël bi maire Arouna Sow di député nee na loolu lépp daan ci gën a taxaw ngir jafe-jafe ya dakk parce que mën naa wax ne commune bu Ndiobène Gandiol fii la chômage bi gën a méttee parce que booy xool dañuy jànk dañuy jànkonte ci problème brèche bi dañuy jànkonte euh, ndox mu wex canal bi agul kon def naa ne xale yi Gandiol mérité nañu loolu jigéenu Gandiol mérité nañu loolu loolu moo tax nag ma jóg taxaw pour loolu ñu mu mën a am incha allahu rabbi Gandiol moon te gis boppam. ndaw yi nekk ci Gandiol nag ànd ak seen maire nee nañu léegi li ñu bëgg mooy jël politique tekk fële waaye tamit liggéey ngir lu jëm ci wàllu koom-koom bi gën a ñoŋ ci diwaan bi. ca Saalum moom kuréel gi ëmb jigéen ñi nekk ci dëkk kaw yi di fédération bi nga xamante ni kon mooy fédération des femmes du monde rural li ñu bëgg rek mooy ñu teel na jox jiw yi su ko defee ñu mën a waajal bu baax a baax nawet bi leneen li ni sàkku bokk na ci kon lël boo xamante ni ñëpp koy séq ñu yëngatu ci wàllu mbay mi muy assise de l'agriculture su ko defee lépp loo xamante ne jafe-jafe la ci mbayum Sénégal ñu mën ko saafara ñu ànd ceeg Abdourahmane Ibrahima Diame ak Fallou jigéen yi nag daanaka ñu ngi bàyyee ko woon ci diwaanu Sénégal yépp ñëw fii ci biir àll bi ngir waxtaanee nawet bii di ñëw bokk na ci nag li ñu teg ci table gouvernement bi pour ñu saafaral leen ko moo di wàllu jiw ak li nga xamante ni moom moo di matériel agricole ñu mën ko jot ci lu doy ak ci waxtu wa. def période bi ñu toll muy période Covid nga xam ne Sénégal fi mu ne réew yëpp a rës ndax bu jëlee tey mbéy jël jiwu bu doy jox ko jigéen ñi. ak seen i doom ak seen i jëkkër jël engrais bu doy matériel agricole bi doy jumtuwaay yu doy bu ëllëgee Sénégal au lieu que muy jëggaani dañuy jëggaan ñoom kon ñu ngi naan président ñu ngi ñuy jox de xeebuñu mais ministre de l'agriculture ñu ngi koy ñaan mu yokkal ñu bu ñu yokkalee ñun Sénégal béykat yi rek mën nañoo relever défi bi. fédération des femmes du monde rural nag yàgg na di joytu ni nga xamante ne seen jotin ci suuf si dafa desandi moo tax kon du ñu tàyyi di laaj ñu amal li ñuy duppee assise de l'agriculture maanaam toog càmbar li di jafe-jafe mbéy mi ak suuf si. comme ñun duñ jox suuf damay ñaan président ñu organiser assise de l'agriculture et mi ak suuf si su boobaa Sénégal dana naat. waxal borom réew mi na mu jàppale leen Ndour Mbaye lu mu xam ñu bokk moom lu ko borom réew mi jox du ko denc dana ko jox doomu aadama njaay jigéen du man góor mooy Ndour Mbaye kon Ndour ñu ngi koy sant da ko gërëm waxal ma borom réew mi ne ko maire yaa fi ne mu jàppale ñu Ndour Mbaye nju ku ko jàppale dañ dem te bu réew mi naatee ñëpp cee jot bay yaakaar nañu jox juhu ñu bay ak daaba ñu bay. rajo bi nag mu ngi amee ci dëkk bii di yenn commune bu Wakunguna ci xolu Saloum liñ fiy gën di bay nag bokk na ci gerte mboq ak dugub. muy soxna yi nekk ci monde rural bi ñu wax ci wàllu xëyum ndaw ñi ak délégation bi nga xamante ne ay député la demoon fële ca Diamniadio ci surtout approche yi ngir rek xool installation yi jëm ci industrie yi nga xamante ne kon ña ngi ko fay def bëgg nañ nag su paree la mën a jur ci liggéey rawatina ci ndaw ñi toll ci ñaar fukki junni ak ñett ñi jiite délégation boobu nag ñaax nañ ci kon kilifa yi ci wàllu woowu ñu ànd ceeg Abdou Diouf Diagne ak Bamba Samb. nekkub député yooyu nga xam ne ñu ngi nekk ci commission bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu koom li ko waral mooy daal di xool politique publique yi nga xam ne état bi daal di ne mu ngi si yoon bu baax ci wàllu euh, boo dugg li nga koy gàttanu ak gàttanu bi nga xam ne kii nit ñi min nañ ko xam nañ ko mu ngi nekk seen wet euh, xool kese ci wàllu entreprise doxul dara doxul lépp Eh, moom war na ko jàppale ci baax a baax ci entreprise war na ko jàppale également ci infrastructure mooy maanaam tali yi ak euh, assainissement bi ak yeneen jumtukaay yi nga xam ne moo tax nit ñi di ñëw fii taamu euh, taamu taamu euh, jam ñaajo loolu nag maa ngi koy maa ngi koy jagle gouvernement bi gis nañu Sénégal mu ngi avancé wala Sénégal mun na gën a avancé mm-hmm. suñ ci bàyyi xel ñëpp jàpp ci industrialisation mën a doon nag tontu bu rëy ci ñàkkum xëy mi nga xam ne dañu koy nemmeeku ci gone yu bëri pour le moment trente cinq entreprises ñoom ñu ngi daw di daw am nañ cinq mille yoo xam ne ñoom ngeen leen ñu ngi ñu ngi ciy liggéey gis ngeen xale yi ñu fay liggéey plus de cinq mille mais wax nañ ne su pare yëpp pare dina am vingt trois mille emplois à vingt cinq mille euh, emplois loolu lañ xayma quoi en tant que tel te xayma yooyu ñu ngi ko jëlee ci ñi nga xam ne ñoom ñuy indi seen candidature wax ne lii la ñuy joxe lii la ñuy lii la ñuy seen business plan li nga xam ne moom lañ ci bind moom la jël calculer ko loolu euh, ñu ngi ci li ñu mën a wax rek moom mooy que production mu ngi fi. député yooyu nga xam ñoo ñëwoon doon saytu liggéey bi ab projet di amal visité nan na benn unité boo xam ne dañu fay raxas or benn unité boo xam ne dañu fay defar carton ak unité boo xam ne dañu fay defar courant boo xam ne si jant bi lay jógee. ca Tataguine foofu nag euh, sous-préfet ba indi nay leeral ci ay xibaar yoo xamante ni ñu ngi circulé ci réseaux sociaux yi ne dafa am ay jàmmaarloo yuy doxoon ci ay nit yu bokkul diine na na nag euh, loolu dara amu ci xëy na rek kon ay nit yoo xamante ni daal euh, yu amoon na jafe-jafe seen biir la ba tax na kon ñu ngi xool ne say indee saafara ci lu ni mel wante nag dënn ya ndeem sax jug na wante moom sous-préfet ba ngay woote jàmm Alioune Wade lu tudd ñu déglu ko ci micro Aminata Goudiaby ak Abdou noté woon daal ay jàmmaarloo yu amoon ci diggante benn sëriñ bu fa nekk ak population yi donc ñu doon xeex xeex yu xaw a métti gendarmerie bi mu ko déggee ñëw na fa remettre un peu de aussi waaye li ko waroon aussi jël na ci disposition yëpp donc waxtaan ak ñaari partie yi donc amoon na ay plainte yooyu yëpp mais à la fin donc jàmm mujj na ci am di wax ne rek coow li ñu ngi koy dégg ci réseaux sociaux yi nit ñi naan entre chrétien la ak musulman donc conflit interreligieux mais li ñu ciy wax rek du loolu mbir mi niñ ko mën a wax rek ay dëkkandoo la mbiru dëkkandoo la donc des fois mu am ay jafe-jafe en tout amoon na ay incompréhension ci parti yooyu ma wax waaye bi loolu amee aussi ñu nit jël nañ ci suñu matuwaay ñu woote réunion amoon na nag réunion bi parti yëpp a ngi ci woon waaye aussi adjoint bi mi ngi fa woon notabilité yëpp ñu ngi fa woon ñëpp rafetlu réunion bi mais bi ñu defee réunion bi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla joxante neen loxo na euh, problème bi maanaam daal jeexal neen ko jeexal neen ko waaye aussi terewul kon en tant que euh, autorité donc dans le cadre de la prévention aussi euh, ñaax neen leen ñoom ñu gën a ñoŋal jo kii bi waxtaan bi ci biir dëkk ba waaye ñu nit aussi bàyyiwuñ donc danañ ci gën a topp ba wax dëgg yàlla euh, jooyin comme ni ñu ko xamee woon dañuy wax ne jooyin ni mu bindoo ci ay ci côté culture waaye ci côté nga dem fa tey fekk fa daanaka diini yëpp ni mu bindoo euh, loolu euh, yombul de man damay wax ne loolu li muy tekk rek mooy unité nationale bi ñi nga xam ne ñu ngi koy euh, wax ci Sénégal soo demee Diohine day mel ni da koy refléter ku may ñaax encore population Diohine ak ñi fa dëkk yëpp ñu wax ci wàllu aada ak cosaan fële ca grand théâtre nag am na exposition bu am solo boo xamante ni ñu ngi ko fay amal di màggal téeméeru atu mouvement bi naan Harlem Renaissance kin ko bàyyi bàyyilee ren euh, di ndem si yàlla Paul Robson loolu nag euh, tax na rek ñëpp daldi di koy rafetlu ndax joojee jëmmu taxawaay bu am solo la taxaw ngir rek euh, ñu gën a fulaal del bu der bu ñuul rawatina fële nga xamante ni kon moom moo ci Amérique ña participer ci boobu exposition nag sàkku nañ ci ndaw ñi rawatina fii ci Afrique ñu gën a gëm seen bopp Ibou Diouf Paul Robeson muy doon wax ne ci diggante li nga xamante ne mooy moom sa bopp wala njaam dañu war a tànn kookee nag ci jaar-jaaram lañuy sukkandiku ngir waxaat ci mouvement bi nekkoon États-Unis te ñu ko doon duppee Harlem Renaissance. Harlem Renaissance me tient très à cœur parce que Harlem Renaissance lu ma yitteel la ma def ko sama xol ndax bokk na ci mouvement culturel yi gën a mag ci diggante ñaari guerre ci Amérique googee Amérique nag nit ku ñuul yàgg na faa sonn ba léegi alkaati dañ leen di bundu mu mel ni kon seen métit yàgg na ñoom afro américains yi. Euh, les afro américains font des choses extraordinaires. wala sax nga ne Harlem di nekkoon quartier rek boo xamante ne ñi doon xeexal ngir àq ak yelleefu askanu dër bu ñuul gën a fës ñooñu nag. moo waral tur bi bàyyi ko ci bile conception ñu ne nag loole mën na doon royukaayu ndaw ñi. wax ci Paul Robson acteur noir. Euh, boo xam ne bii nit ñi ràññee nañ ko ci lim doon xeex ak ak yelleefu doomu aadama bu nit ku waa naa ni soxlawul sax ñuy ut fu sori parce que Sénégal moom mooy dëkku négritude ak renaissance ndax Senghor ak Abdoulaye Wade ku ne xam na bay nañ seen waar donc exemple yi moom mu ngi fii war na leen mun a inspirer lu bëri daal ci li ma yaakaar. voyons l'itinéraire de Paul Robson. ku gis Paul Robson ak jaar-jaaram royukaay la rawatina doomu Afrique yi. war nañ cee gën a mën a roy gëm seen bopp xam ne fii ci continent bi ma na fee liggéey tekkee fi ba génnee fi àdduna. ay kilifa ñoo xamante ne dañu xaroon seen tànk tubéy ngir lépp lu aju ci wàllu dooleel askanu der bu ñuul ñu taxaw ci moo tax ñu ne nag lu mat a fësal la ngir xale yi mën ci roy. jërëjëf Ibou Diouf ñu wax ci wàllu tàggat yaram tey ji journal record xëy na xamal ñu ne mu mel ni kon euh, maître Augustin Senghor euh, dina samp ndëndëm ngir nekk rek euh, président fédération sénégalaise bu football moom léegi lan tabb mu daal di nekk premier vice président bu CAF di confédération africaine bu football nar a keneen di Saër Seck mi jiite kon ligue sénégalaise de football professionnel am na ñeneen it yoo xamante ni ay kàngfoore leen ci milieu football bi ñoom it ni kon bëgg na ci kon ni moom moo jiite génération foot euh, di Madi Touré wante tamit euh, président bu Tëngéej FC ak ñeneen mu mel ni kon xëccoo bi nar naa taal ci kan moo war a jiite fédération sénégalaise bu football Cheikh Tidiane Diaw. fësal ci alxames bi ni maître Augustin Senghor dafa am yéene wuti ñeenteelu mandat ngir jiite footballu Sénégal muy loo xam ni observateur yu bari xaaruñu ko woon ginnaaw bi ñu ko tabbee vice président bu confédération africaine bu football journal sportif groupe Futur Média bi euh, ne ñu premier vice-président fédération bi àndu ci euh, ndax dafa am yéene samp ndëndëm Sayer Seck dafa doon wax ni du ma se présenté wu contre maître Augustin Senghor tey jii mu jàpp ni heureum euh, pour mu jiite jot na Augustin Senghor nag du gulet muy jàkkaarloo ak ay anciens collaborateurs am élection yu mujj yi Louis Lamotte ak Mbaye Diouf Dia la ko seqaloon tension bi doon yéeg bu baax ci campagne bi ci xibaar comité exécutif moo war a àtte ci diggante président fédération ak président ligue football professionnel bi sinon xaajaloo bu métti nar a am ci footballu Sénégal ci élection yooyu le nag Madi Touré président bu génération foot moom déclaré na candidature am ba noppi. ñu wax ci wàllu dam yee fii ci Sénégal ñu ko kon jeu de dame mu mel ni fédération bi bëgg nañoo rek démarrer compétition yi bi ci gën a mag nag muy tournoi open boo xamante ni la ko tax a jug mooy ñu gën a ñoŋalaat lii di saison bi su ko defee kon ñu gën a xarañ ci xeetu moomee po euh, ñoom it ñu daal di leen di jox ay raaya ñu ànd ceeg Cheikh bu jara image yi amadu Ba. fédération bu Sénégal bu jeu na activité mu ak benn tournoi sargal. benn tournoi open euh, jagle ko nag suñu ñi génn àdduna ci biir 2020 bi ak 2021 ay joueurs ay dirigeants yu mel ne ñoom Lamine Diop et autres la moo taxoon ñu organiser boo gisee tey jii nii Ligue de Kaffrine est prêt Ligue de Kaffrine ñëw na Ligue de Thiès a ngi fi Ligue de Louga a ngi fi Saint-Louis a ngi fi dakaar a ngi fi bon Diourbel laa gi gisul. mandaam jeex muy xaarandi AG bi fédération bi am na programme mu takku ren jii. suñu mandat jeex na euh, ren ji en 2017 mais comme xam nga daaw ba ren activité amul dara amul ñu ngi danañ commencé ñun actuellement commencé bay dès na pour def suñu assemblée fii ak euh, fin d'année bu ñu waree bu fekkente ne euh, confédération africaine confirmé na ne kat dina mën a organiser championnat du monde avant juin il faut ñu organiser championnat national ñun. mais bu fekkee ne championnat d'Afrique amul nag moom suñu priorité nekk tout championnat national suñu priorité mooy def l'ensemble de régions du Sénégal chaque ligue ñu jot defal la benn open nga dajale say joueurs. Sénégal am itam ay jongante ca bitim réew. championnat d'Afrique dafa war a am bu fekkente ne ne champion euh, championnat du monde bi war a am Tallinn en Estonie fédération mondiale confirmé na dina am malgré tendance su Covid bi actuellement nii. donc Afrique war naa organiser championnat d' Afrique buy qualifier au mondial Sénégal war naa organiser un tournoi ou bien un championnat pour qualifier à Afrique loolu nag ci diir bu gàtt lañ ko am mais teewul ñun ren jii nii bi ñu xamee ne fédération mondial demande nañu nañu kat dafa bëgg organiser championnat du monde jël nañu suñu matukaay. Adama Gueye di président fédération bi jamono ji nangoogul joxe kàddoom ci nekkum candidat am wala déet mu xamle ni dafay déglu comité directeur bi. laata ñuy yëkkati jotaay bi ñu dégtal leen li gën a fës ci yenn kaay ak Alaaji Assane Gueye xëy tey ak poste bi di bu premier cabinet d'instruction poste bu ndem si yàlla juge Samba Sall jiite woon observateur ne naam ñu koy yóotu bari na waaye du poste bu ànd akub noflaay de ndax ci xibaaru yéenekaay bi lu toll ci ñeenti téeméeri dossier wala lu ko ëpp ñu ngi ci taabal joojee rax ci dolli dossier yi gën a saf gën a sensible fa lay jaar ak it magistrat ba koy jiite ci wag coow li koy topp ci wàllum média yi ñu des ak observateur mi ñëwaat ci jaar-jaari njiit lu bees bu section recherche gendarmerie Colobane capitaine Aliou Ndiaye yéenekaay bi ñëwaat ci yëg gi macha allah dale ko ci enquêteur kese atum 2012 ba ni mu nekkee patron yi enquêteurs yi Colobane ñu ne fanweer ak juróom-ñaar ci at ci la toll la koy xaar ci liggéey bi nag du doon lu yomb ndax wuutu commandant Abdou Mbeng du lu ndaw donte moom capitaine Alioune Ndiaye xereñ gi mu ngi fi ñu ne rax ci dolli macha allah dal woon ca Patar ga étudiant fàllu seen fekk baax ñu faatoon ko ci UGB atum bi gone yëngu foo fekk mooy capitaine gendarmerie bi ñëwoon dalal leen moytul gox ba fitna kanam ci yéenekaay bi di laas bokk na ci Karim Meïssa Wade Ousmane Sonko Khalifa Ababacar Sall waaye ndaw ci mel ni Thierno Bocoum Babacar Diop yéenekaay bi defal rajo seet yaramu opposition boobee ay jaar-jaaram wàllu idéologie ak taxawaayam ci penc mi yéenekaay bi waxit ci ñi nga xamante ni ñooy opposant classique yi maanaam ñi bokk ci ñëwoon démb ñi ci dooni wàcc bees waaye ndaw yi taxaw aku xereñ lu jëm ci njëlu nguur ak doxal gi pàcc bi ñu duppee nag ci arène politique bu Sénégal la gauche moom la Sud Quotidien xëye tey waxtaane mu mel ni pàcc boobee gauche bu Sénégal buy wërëw yoonam waaye docteur Serigne Thiam di enseignant chercheur ca faculté sciences juridiques iniversité Cheikh Anta Diop boobu Ndakaaru ba tey ak Sud Quotidien dafa gis ne léegi kay wàllu idéologie moom daa dandu xajal li nga xamante ni mooy ay alliance contre nature maanaam ànd yu xel mësul jàpp ànd yu doon daanaka njaxas ngir nag élection gox-goxaan yi ak réero bi ci ba tey diggante pouvoir ak opposition ci ab bi nuy jël waa FRN Front de Résistance Nationale ñoom décembre 2021 fa la ñu taxaw moom la ñu bëgg source aané yëf ci xaajaloo lay mujj de ndax gëmuñ ne ñoom ndam dina am ci wàllu médiation doonte am na ca société civile bi ak ñenn ñu nu duppee non aligné ñu cay dox tànki jàmm waaye lañu bëggal majorité bi nangu luñ ko maanaam ñu daal di dogu ci ne bu fekkoon sax ne ci wàllu local yi dugg nañ ci janvier 2022 législative di wotey député moom kenn du ko mës a toxal waaye Benoît Sambou ak i ñoñam dañoo lànkal médiateur yooyee signé gi ndax ñoom ñu ne ay ndawi benn Bokk Yaakaar lañu duñu yu président ki Sall Khalifa Ababacar sal moom na muy doxee bees ci wàllu conge ci wàllu dëgëral gi enquête taxaw ci ab diir ndax ñoom dañoo gis ne démb doon na ca boole sax as tuut ci masla professeur Moussa Diop ci yéenekaay bi daf ne Khalifa Sall dafa xam ne ak ñii mu janool faaw ak dëgëral naka noonu it bu bëggee safaat ñenn ci ñoñam yu frustré woon professeur Moussa Diaw moom ci wàllu tëralin gis ne Khalifa Sall buñ ko tuddee ndakaaru la xel di dem ndakaaru d'abord laata muy lawali banqaasam ci diwaan yeneen yi Moussa Taye conseiller politique bu Khalifa Sall mel ni moom kuy ñaawlu ci yéenekaay bi ci seeni jaar-jaar ak i yoon ñi leen trahir ca nekkoon ni partenaire ak i collaborateur leneen ci yéenekaay yi di denc ak njaayum garab gu rëy gu dëppoowul ak yoon sécurité urbaine gàntal seeni pexe libération ñëwaat ci ne sûreté urbaine kar na jàpp kuñ naan hay dong zang ak i xaritam di pharmacien doomi Sénégal ay toni toni garab lañ doon làq cim taax ci ndakaaru ba ci sax pikiir rek garab yoo xamante dañu ko jagleel ñu amee jabet yu ñu denc ci toilette ca nag ñaawteef yi ay ati ata ngi ñu koy def libération ne police garda bi na waaja ak ñaari pharmacien yi mu ci lëngaloon juróomi kilifay pharmacie yu doon yëngu ci njaayum garab yu bon yooyu it convoqué leen tey de la pharmacie ci valeur ay milliards inspection des médicament di ñëwaat nag ci kaay bi ci nañu def ba gàntal pexe yooyee njublang lii quotidien moom yamul ci yéemu géeg njàmbarte gi nga xamante ni kilifa yi wane nañ ko ngir sisir gi waaye dafay tiit ngir wér-gu-yaramu askan wi maanaam la santé publique ci Sénégal commission UEMOA Sénégal jilaat nab toogoom noonee le témoin xëy waxe tey ak paluk ministre Abdoulaye Diop nekkoon fi jamono jëwriñ ji ñu dénk wàllu budget le témoin ne geneenuk la ci Sénégal ci njiitam président Sall gannaaw ndam la woon ci lànk embargo bi ñu nasaloon Mali ci jamonoy fitna gëfa woon Sénégal ba tey ci wàllu koom-koom ak njàppale Union européenne Le Soleil ne ngir suqaliwaat gi union européenne nuppi na ngir gunge ci Sénégal wàllu làmb la nu jeexale ak sunu làmb ñu xamal ne Ama Baldé Modou Lô yeesalaat nañ seeni licence te promoteur bi Luc Nicolaï mu ngi ci yoonu régulariser boo bépp komba lamb ji nag ci boppam ak it li waral boobaak léegi tëralin wi ak tëddin wi xar kanam gi munta changé ñu may chance yeneen mbër yi revanche yu dul jeexi ci la xaaj bekaay mbay moom jàpp na ne loolee du lu jaadu ndax nag làmb ji munta yam rek ci juróomi mbër jërëjëf Alaaji Assane Gueye mbokk yéen it euh, sant ak ngërëm ñal na leen fi ñu yem ak yéen ci xibaar yi jox leen daje ngoon incha allah ak yeneen édition yéen leen jàmm